haa wala duniyaati haa wala duniyaati shukran shukran shukran rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 su nga defee itam loolu moo tax yàlla joxoñ ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni na ngeen ko def seen royukaay mu wax ñu ni yéene yonent bi ci ñun nee na moom borom bi mooy yéene bi mu am ci jaamam te mooy fexe leen yërëm ñoom ñépp ba tax na mu jël yërmande bi séddale ko ci dënn yonent bi pour mu indil ko xeet wi mu dem sax ba borom bi wax ni sabab bi ma yónnee yonent bi sabab boobu jubluwuma ci lu dul rekk pour yërëm leen wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin su ko defee mooy joxoñ bi mu ñu joxoñ yonent bi mu indul nu yërmande yàlla waaye mu mel ni itam yërmande boobu yépp ñu ngi koy amee ci jàng jukkoom moom yonent bi ci li muy santaane te génnul alquran waaye ci itam yóbbal yi nga xam ni moom la ñuy jox te yóbbal yi itam di ñu teg ci siraatal mustaqim moo taxoon moom yonent bi mësul noppi ci di jàngale waaye itam mësul noppi ci di soññaate te njàngaleem ak soññaateem yépp mooy fexe jullit yi ñu am jukko yoo xam ni bu ñu dajeeg seen borom ëllëg dina doon jukko yu yàlla gërëm looloo taxoon benn bés ci njàngaleem moom yonent bi mu indi ñaar benn bi mu wax ni ña ñoo tuddee muminuuna xàqan yi nee na mooy seen jukko te nee na jukko jooju jukko ju yàlla gërëm la beneen bi mu wax ni ña ñoo tuddee munaafixoon yi te di naar feq yi mu wax ni même suñu waxee ni adhéré nañu bokk nañu ci biir société musulmane loolu mooy doon seen jukko te nee jukko ju yàlla rëbbal waaw bi ko saxaaba yi laajee mu ni leen jukko bi nga xam ni moom la muminuuna xàqan yi jukkoo neena mooy ba ñoo tuddee maandu waaw nee mooy ba ñoo tuddee maandu waaw mu ni te jukko la itam bu yàlla gërëm mu wax leen itam jukko yi nga xam ni nee na munaafiqun yi di feq yi même bu ñu waxee ni ñoom bokk nañ ci biir société musulmane mooy seen jukko te nee mooy jukko bu yàlla rëbb nee na mooy ba ñoo tuddee kiñaan nga gis na mu indee parallélisme bi waaw bi ci jiitu nga xam ni nee na mooy jukko ji yàlla gërëm te nu koy tuddee maandu xam nga maandu nag ñu bari dañ ko xàmmewul parce que bu ñu waxee maandu mooy ki nga xam ni su yëkkatee làmmiñam di wax day wax li ko wóor foofu la maandu tàmbalee maandu mi nga tàmbalee ci bu nit ki yëkkatee làmmiñam di wax mu wax li ko wóor waaw ñu ni maandu itam mi ngi tàmbalee ci bu nit ki dee seede mu seede lu mu xam waaw mu seede lu mu xam waaw ñu ni itam mi ngi tàmbalee ci su nit ki dee apprécier mu apprécier li mu gis waaw muy ñetti teggin yu am solo bi ci jiitu muy ñu wax ni na nit ki wax li ko wóor loolu mooy tudd maandu waaw li la wóor mooy loo xam ni am nga ci yàqin waaw kooku mooy li ngay wax danga koy maîtriser ba noppi xam ko boobu mooy bi ci jiitu mooy nit ki li muy wax fekk mu maîtriser ko ba noppi xam ko waaw li ci des nga xam ni day dellu si nit ki mooy buy apprécier it mu apprécier la mu gis waaw mu ngi mel ni nga gis nit di julli nit di jàmm yàlla waaw nga xame ko ci lu baax xëy nit ñëw ni la moom kat baaxul walla nga ne ah man de li ma ko xamee ci lu baax laa ko xame ci jàmm yàlla it laa ko xame waaw bu dee am na leneen lu ñu seede ci moom it xaw ma ko ci moom waaw loolu ñu tuddee maanu mooy booy apprécier nga apprécier ci li nga gis parce que yonent bi dafa wax ni loolu na xàqan yi mu ni jukkowoo ñu tuddee ka màndu nee na ñoom lay jëriñ waaw nee na ñoom ñi ko jukkoo ñoom lay jëriñ ndax nee na màndu tomb tomb lumière la boo xam ni bu ko yàlla defee ci xolu jullit bi nee na dafay dëgëral imaanam maanaam foo fekk ku màndu nee na imaanam du wàcc mukk bés bu xëy day gën a gëm yàlla waaw yonent bi ni tomb tomb lumière la boo xam ni bu ko yàlla defee ci dënn jullit bi nee na dafay gën a dëgëral imaanam waaw moo tax buy wax dafay wax la mu xam buy seede dafay seede la mu gis te mooy la mu am yaqin waaw looloo taxoon bi ko Ababacar di wax ni eh, yàlla mu ni yàlla dafay bañ ñaaw njort yàlla dafa ni bëgguma ku ñaaw njort ci sama jaam yi yonent bi ni ko nag liy dimbali nit ci rafet njort mooy mu màndu waaw ndax nee na boo màndoo rek rafet njort ci jullit yi ndax la nga gis rek ngay seet waaw nee na bu demee ba wax ñëwit nee na la nga xam rek ngay wax moo tax yonent bi ni jukko jooju ñu tuddee maandu mu ni su duggee ci xolu muuminu na xaqan bi dafay yokk imaanam waaye nag moom lay jëriñ waaw ñu ni ko lu tax mu ni parce que même nit ki su maanduwul loolu du wàññi yàlla dara ci li mu def ci doomu aadama bi waaw moom rek lay yàq maanaam mooy mënoo gis nit ñàkk maandu ci moom ba tax sa ñàkk maandu boobu yàqal ko dara waaw mënul nekk boo tax boo mànduwul yonent bi ni yow mi mànduwul lay yàqal waaye nag loolu amul lu muy impacté ci dogalu borom bi waaw mooy li yàlla di dogal ci ay jaamu yonent bi ni soo mànduwul nee na yow lay yàqal sa digganteeg yàlla waaye amul lu muy impacté ci dogalu borom bi ci jaamam boobu waaw mu ni nag soo màndoo nee na mu yokk sa imaan looloo tax yonent bi wax saxaaba yi ni leen bi ma leen di jàngal ni imaan mu ni lu jafe sàmm la ba génn ak àdduna ànd ak moom waaw ndax dina am ñoo xam ni quelques années lañ koy sàmm yàlla xëy iblis indi fa pexe ba yàlla rocc imaan bi am na ñoo xam ni danañu dem ba ci seen dernière seconde di dund yàlla rocc seen imaan yonent bi ni waaye mësuma gis mu ni fu yàlla roccee imaanu ku maandu waaw te yonent bi li mu mësul gis mooy li amul waaw mu ni mësuma gis fi yàlla roccee imaanu ki maandu mu ni li ma gis kay mooy ki maandu moom yàlla bés bu xëy day gën a dimbali ko ci sàmmal ko imaanu moo tax moom lay génnee àdduna waaw mu ni moo tax bu ñu waxee jukko jullit yonent bi nee na jukko yi li muy bare bare jukko ba nga xam ni mooy jukko faar ba nee na mooy la tuddee màndu waaw moo tax Umar waxoon ni eh, màndu mooy indi dëggu waxoon ko mu ni màndu mooy indi dëggu mu ni que bu fekkee nit ki buy seede la mu xam lay seede buy wax la mu la mu xam lay wax bu ñu ni ko it eh, seedeel lu mu gis lay seede nee na kooku fa dëggu yam waaw moom Umar moo ko wax mu ni kooku fa dëggu yam parce que nee na bu fekkee nit ki buy seede moom la mu xam rek lay wax waaw du wax mukk la mu xamal waaw buñ ni kay noo gise diw na mu gise diw ci na muy julleeg na muy jaamu yàlla lool lay wax waaw Umar nee na kooku booy tànn ku dëggu nee na su la kooku rawee kon dootoo gis ku dëggu waaw te nee dëggu boobu ci moom nee na maandu moo ko indi yonent bi ni moo tax buulu lumière la waaw boo xam ni mu ni bu nekkee ci xolu jullit bi nee na bés bu xëy buulu lumière boobu dafay gën a arrosé xolam xolam di gën a leer imaanam di gën a sàmm ba buy génn àdduna dafay génn àdduna ànd ak ngëm yàlla waaw moo tax lu am solo mu daan ko digle waaye beneen bi mu wax ni mu ni jar na di moyetu nee na jukko naar fekk la donte naar fekk ba nag nee na mën na wax ni sax ci biir société musulmane la bokk waaw nee na donte naar fekk ba mën na mbubboo jullit waaw yonent bi ni lu jar di moytu la ndax jukko boobu nee na jukkoom la waaw ñu laaj ko ban jukko mu ni mooy jukko ba ñëw tuddee kiñaan waaw xam nga kiiñaan soo koy traduire mooy xeemeem li nit am nga bëggoon ko am te yàlla dogalu ko ci yow nga ni waru ko woon am waaw loolu la tuddee kiñaan waaw mooy li nit am nga xam ni boo sañoon mel ni moom yàlla dogal ni meloo ni moom nga ni yéenewuma ko ko waaw kooku la noo tuddee kiñaan yonent bi dalal seen xel ni leen même bu ngeen kiñaanee ci jaamu yàlla yi du tax yàlla lam leen jox mu dindi ko waaw nee na du tax yàlla lam leen jox mu dindi ko dafay continuer di leen ko jox mu ni kon jukko jooju su nekkee ci nit nit ki ci cadre munaafiqoon lañ koy delloo mooy ci narfeq te nee na buñ ko delloo ci narfeq nee na la moo tudd moom ni ngëm-ngëmam la dootul amati njëriñ wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al axiri wa ma hum bi muminin waaw nee mën na wax ni comme ci biir nit ñi la ne ni gëm na yàlla gëm na alaaxira waaye jëfam du doon jëfu ku gëm yàlla du doon jëfu ku gëm alaaxira ndax ki moo koy lal mu ni moo tax su boobaa duñ ko nangu moo tax nee boo ki ñaanee rek nanga nga fàttaliku ni maa yaftahi llaahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha yonent bi ni boo kiñaanee na fàttaliku ni yàlla su jëlee yiwam jëme ci jaam nee na yiw boobu amul kenn ku mën a dox digganteem ak yiw boobu ba du àgg ci jaam looloo tax mu ni kiñaan mooy xeemeem li doomu aadama bi am nga yéene woon ko sa bopp amoo ko neexu la nag waaw nga ni doo ko nangu maanaam li Ababacar waxoon ni foo fekk ku kiñaan mooy kii dul nangu dogalu yàlla moo tax mu am bés ndeysaan Alioune Thiax Alioune Thiax Umar ci baat bu am solo mooy Alioune wax ko ni euh, Umar yaa ngi fàttaliku mu ni ko jamono ji ñi gëmloo naan ki ngeen topp muy Muhammad euh, wérul waaw naan xel mi neexul waaw Umar fàttaliku ko ndeysaan ci kàddu yu ñaaw ya tracteur yu yonent bi daan wax ca màkk mu xaw triste Aliou ni ko man de tristesse jàppuma ci li ma ci jàpp mooy taxaw seetlu dama méditer ci baat boobu waaw Umar ni ko nan nga ci méditer Aliou ni ko ni ma ci médite mooy ndekete ñi daan wax ni yonent bi wérul ñoom ñoo wérul waaw mu ni ko lu tax mu ni ko parce que ñoom ña ko doon wax ñàkk nangu dogalu yàlla moo taxoon ñu di ko wax te àll ni ko mësuma gis ku xelam motadi bëgg na motadi ki dul nangu dogalu yàlla wax na dëgg mu ni ko parce ki nanguwul dogalu yàlla du tee yàlla la mu defoon mu di ko def ba léegi kenn du ko dindi kon su ko defee mu ni motadi xelam mooy tax mu ni du ma nangu dogalu yàlla te xam ni même su ko nanguwul du tee yàlla continuer def la mu doon def amul kenn ku nanguwul dogalu yàlla ba yàlla ni comme nanguwu ko kat naa dindi la ma maye woon du ko def waaw léegi mu ni kon loolu mooy li yonent bi jàngale tuddee ko kiñaan mooy li yonent bi tuddee kiñaan su ko defee nag yonent bi li mu wax moom ci maandu na muy nekkee buulu lumière boo xam ni ci xolu doomu aadama bi bis bu xëy day arrosé imaan bi mu gën a dëgg nee na noonu la kiñaan melit ci jëf yu baax ya nga daan jëf waaw yonent bi nee na mësuma gis lu mën a raafal jëf yu baax ba mel ni ki ñaan waaw buñ ko doon misaal nee na day mel na nga taal benn safara safara soo xam ni dafa tàq ba boy nga jël fii ci suñu réew lu ñoo tuddee sàkket nga sotti ci essence ba noppi teg ca safara balaa ay minute danga gis ni dana boy ba nekk dóom yonent bi nee na noonu la kiñaan mënee yàq jëf yu baax waaw moo tax yonent bi ni foo fekk nit mu kiñaan nee na na nga mën a waat ni amul benn yiw bu mu yore waaw nee na na nga mën a waat ni kooku amul benn yiw bu nekk ci moom yonent bi ni foo ko fekk nag waaw nee na donte kooku da ko gis muy dëkke naafila donte da ko gis muy dëkke jàng alxuraan donte da ko gis mu dëkke di waaraate donte danga ko gis mu dëkke nekk ca jumaa ja nekk sa jàkka ja di dem màkk di def xaj di tawaaf ca kaaba ga yonent bi nee na boo yëgee ni kiñaan a ngi ci moom nee na mën nga giñ ni benn yiw amatu ko ci kontam waaw ñu ni lu tax mu ni parce que kiñaan bi mooy lakk jëfam yu rafet yi jëfam yu baax yi ni nga xam ni noonu la matt matt mu wow di jeexee ci safar waaw looloo tax nag ñu ni taalibe bi yow mi nga xam ni dangay wut njiit ñu di ko tuddee sa sëriñ ñu ni nanga nga fexe ba xàmme ñaari jukko balaa ngay jox nit sa bopp waaw jukko bi ci jiitu nee ñu balaa ngay wéeru ci nit di ko jox sa bopp pour mu àggale la ci yàlla na nga bàyyi ba mu nekk ku màndu waaw parce que nee ñu soo wéeroo ci ku mànduwul du mën a def jukko ju rafet ci yow du ko mën def waaw li mu lay jàngal yépp mooy yàq der rek waaw lam lay wax loolu lépp mooy lu la wóorul waaw lam lay seede lépp mooy loo xam ni gisoo ko waaw ñu ni boobu danger la waaw ñu ni beneen danger bi itam ñu ni mooy boo amee njiit tudde ko sa sëriñ te mu kiñaan nee ñu boo moytuwul nga ànd ak moom ëllëg dajeeg meru yàlla waaw ndax mag ñi dañu ni loolu mi ngi mel ni di ñëw di wut ker ci garab gu amul branche amul xob nan la lay kerale waaw mag ñi nee ñu dem wéeru ci koo tuddee sa sëriñ te mu leer ni la ku kiñaan la nee na mooy ñëw di wéeru ci garab naan da wut ker te garab ga amul branche amul xob waaw mooy bu doon nitu diina la it amul yiw ku amul yiw nan lay jokkee boppam bay jokku keneen waaw loolu la yonent bi wax waaw yonent bi nee na ki ñaan bu nekkee ci nit mën nga am yaqin ni yiw desatul ci kontam waaw ndax mbooloom yiw bu mu amoon nee na yàlla jël na yiw ba bàyyi ko ki ñaan ba mu lakk yiw ba ba yiw ba jeex tàkk mu bàyyi ay bàkkaar looloo tax nag ñu ni yow mi nga xam ni da ngay wut wasila nga wéeru ci ku kiñaan da ngay sonal sa bopp ndax amul yiw ba di la jox yiw waaw te nit it mënul joxe lu mu amul nag waaw ñu ni nit mënul joxe lu mu amul moo tax yonent bi def paraleel bi ci diggante ñaari jukko yu am solo benn bi mu wax ni jukko muminuuna xàqan yi la mooy maandu waaw mu ni foo fekk ku maandu buy génn àdduna imaanam lay yóbbaale ndax bés bu xëy dafay gën a gëm yàlla rek Umar feelu ko foofu wax ni foo gis ku màndu ku dëggu la waaw ndax nee na la ngay wax nga xam ko la ngay seede nga xam ko fa la dëggu yam waaw Ababakar ni koo gis mu maandu moom mën na giñ ni kiñaan nekkul ci moom waaw ndax ki dul wax lu dul li mu xam nee na kooku amul benn prétexte bu muy indi pour wax lu ko wóor ñu ni boobu kon jukko muuminu na xàqan yi la beneen ba nag yonent bi ni mooy ba ñoo tuddee kiñaan mu ni koo ko gis ci moom bu la nee jullit la dafay nax boppam rek naar fekk la waaw ndax nee na ju jullit du jukko woo mukk jukko jëñoo tuddee kiñaan waaw foofu àllin feelu leen waaw àllin feelu leen wax leen ni maa ngi soog a comprendre mu ni yonent bi ñu toogoon fii ci màkk naan ñu ko ngeen du topp muy Muhammad eh, xelam neexul mu ni Umar léegi lay soog a xam ni ñoom la seen xel neexul ñoom ñi nanguwul woon dogalu yàlla waaw mu ni ndax bi ñu waxee loolu teewul muhammad di muhammadu rasulullahi waaw teewul muhammad yàlla yónni ko ba noppi dénk ka lam ko dénk kon ñoom ña doon wax loolu te kiñaan dong motiver leen woon ndax yonent bi xëy na jaarul fenn fi ci niñ ko fooge woon ñoom ba nekk notable comme ñoom yàlla def ko mu nekk la meilleur de êtres créés di gën gi mindee mu ni ñàkk ka nangu ak kiiñaan ñaan tax ñu naan xelam neexul ak ay jinne lay gis ak di wax te alxuraan indi na ko alxuraan indi na ko ndax loolu lañu waxoon àllin ni ñoom nag waxuma sax gis jinne waaye ndekete ñoom ay dof lañu noonu la ko àllin wax waaw mu ni ñoom waxuma gis jinne waaye jinne sax soxlawu leen ndax seen xol rek mu ni yàqal na leen seen diggante ak lu baax waaw moo tax yonent bi bi mu déggee seen waxtaan mu woo leen ba ñu ñëw mu ni leen benn siddit moo nekk ci doomu aadama su jege doomu aadama ba jag na su yàqoo doomu aadama ba yàqu na muy xol waaw yonent bee leen ko wax waaw ni leen benn siddit mu nekk ci doomu aadama di benn sóox waaw nga xam ni yàlla nee na maa leen gën a jege seen siddit bi nga xam ni moo tee seen buumu xol yonent bi ni pourtant sóox ba mu gàddu yépp ñu tuddee ko xol su baaxee doomu aadama ba baax na su yàqoo doomu aadama ba yàqu na waaw ñu ni ko lu koy baaxal mu ni maandu maandu moo koy baaxal waaw ci bekk ñu ni ko lu koy baaxal mu ni maandu moo koy baaxal ñu ni ko lu koy yàq mu ni kiñaan moo koy yàq waaw nee na moo tax foo fekkee njiitu diine bu ñu ni la ko maandu la na nga xam ni ëllëg bu ker amul yowmal xiyam yàlla dina ko boole ci ñi muy keral ma yonent bi lim na ko ca juróom-ñaar yàlla di keral yowmal xiyam bu ker amul kam ca njëkk jiital mooy imaam bu màndu waaw imaam bu màndu la njëkk jiital soo koy indi xale boo xam ni dafa màgge ci jaamu yàlla waaw boroom kawar gu ñuul guy jaamu yàlla ba kawar gu weex fekk ko ci waaw waaye imaam bu màndu la jiital waaw ñu ni itam ëllëg ñan lay yàlla di wan ni jarul sax ñu leen di yóbbu di balancer seen jëf yu baax ak seen jëf yu ñaaw di xool ban moo ca ëpp yonent bi ni mooy ñi kiñaan waaw yonent bi nee na ñi amee feebaru kiñaan nee na kenn du leen yóbbu ëllëg yowmal xiyaam di natt jëf yu baax ak jëf yu bon ndax deseetuñu jëf yu baax mu ni seen jëf yu baax yépp yàqu na ci àdduna ba noppi jëf ju bon rek lañu ñu des mu ni moo tax ñooñu la gis ni dañ leen di jël jubale leen directement ci malaaka Malik may garde safar mu jaarale leen ca ligne directe bi jëm jahannam lu jar di moytul waaw bi Alioune déggee njàngale boobu yëpp nag ca la ni kon kay su ma nee ñooñu wéeruñu war ngeen ko gëm ndax koo xam ni mu ni eh, melokaanam du tax yàlla dindi la mu defoon te melokaanam sànq na ko yonent bi ni ko nag ñaar yooyu daal la gis ni bii mooy defar xol bii mooy yàq xol waaw nee na bii defar xol mooy maandu bii yàq xol mooy kiñaan waaw looloo tax nag mu daan wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñi leen di jiite ñi leen di jiite ci diine nee na na ngeen natt seen jukko ba noppi waaw ah. mu ni su dëppook sama jukko man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen xam ni bu ngeen doon wut ndona ñu mën nan ma donn ci fi ma teg sama tànk waaw mu ni waaye su dëppoowul ak sama jukko na ngeen xam ni ñooñu bu ñuy donn it donn ñu ma man yonent bi waaw moo tax lu jar di bàyyi xel la te nag danger bi dëgg-dëgg wax naa ko ni euh, du du rek euh, jàngale maandu ak jàngale kiñaan danger bi mooy la Iblis waxoon bi mu xëyee ni dafay jaay kiñaan ñëpp ni ko du jar waaw ñëpp ni ko kenn du ko jënd ba mu dellu see ni xam nga ñu ko jënd ñu ni ko déedéet mu ni ko mooy ñi nga xam ni danoo woote diine di waaraate ñoo ko jënd ci man ba mu jeex waaw mu ni ndax bu nit waxee aaya alxuraan boo xam ni leer na leen ni lii alxuraan la waxu yàlla la seen bëgg daraja dana tax bu nu ñëwee bëgg dindi lu ko wax teg fa la ñu wax waaw te kooku sonal sa bopp la waaw kooku sonal sa bopp la benn xakim waxoon na ko waaw benn xakim nee bu yàlla falee nit neena bu nit ñëpp dajewoon ni du fi falo dana falu waaw nee itam bu yàlla falul nit nee na bu nit ñépp doon ko boox naan moo fi ne moo falu du tax mu falu moo tax qul illahuma malika al mulki tuati mulka man tashaau wa tanziu man tashaa waaw yàlla ni wa tuizzu man tashaau wa tuzillu man tashaau bi yadika al xayru waaw nga gis yàlla organisation yonent bi lim daan jàngale yépp te mu jëm ci defaru ci côté yooyu la jëm waaw jullit yi la daan fexe pour ñoom seen imaan ñu préserver mu xam ni lu jafe mu digal leen maandu mu dem ba wax moom yonent bi ni soo maandoo rek sax maandu wan la yoon ñu ni ko lu tax mu ni ndax ñi maandu mooy ñi tegu ci siraatal mustaqim waaw beneen bi mu wax ni boo kiñaanee rek kiñaan sànk la mu ni ñi kiñaan mu ni mooy ñi nanguwul dogalu yàlla waaw te maa li naa linnaasi min rahmatin falaa mumsika laha nee na kooku boo ko déggee boo gëmee alquran war na la doy waaw war na la doy su ko defee loolu mu daan jàngale pour dimbali jullit yi moo taxoon moom yonente bi mu daan ko jàngale waaw waaye da ngay gis ni dañoo toll ci jamono joo xam ni yooyu yonent bi daan jàngale danga nga ciy sax jaaxle da nga ciy sax jaaxle ndax nit ñi majorité bi dafa runu seen priorité àgg ci yàlla waaw la def seen priorité mooy yàqantey der waaw fekk nit ku baax ni baaxul kii fekk nit ku baaxul mu ni baax nag loolu lañ fi nekkee guddeeg bëccëg te loolu nag tardeel sa bopp la parce que ki yàlla baaxal baaxal na ko ba noppi ki baaxul it jub rekk ko war waaw su ko defee moo tax ñu ni ñi jëm ci yàlla na ñuy xool ba xàmme ci ban yoon la ñuy jaare pour jëm ci yàlla te bañ a topp rek la ñoo tuddee euphorique ki ñaan ak leneen li nga xam ni day yàqal jullit bi ci siraatal mustaqim te loolu yépp yonent bi bi muy indi garab bi nga xam ni mooy médicament bi lay dimbali pour nga tegu ci siraatal mustaqim ëpp na plus de mille quatre cent waaw mu jàngale ko waaw jàngale boobu nag mooy njàngale bi nga xam ni moo war a doon lu opérationnel tey ci ëttu jullit yëpp ndax ñu mën ci jëriñu suñu digganteeg yàlla waaye aussi mën ci am mën dem yàlla ñu ko defal ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ha wala dunyaati ولا دنياتي شكرا شكرا شكرا